bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu gannaaw bu nu nuyoo bokk ji li siyaar leen ndokkeel leen ci bis bu tedd bi nga xam ne benn bis la ci bis yi ndax bis bu nekk dafay màndargaal boroom dafay tollit ni boroom te boroom bis bi kenn la rek eh, ci ñi sunu borom tànn indi leen ci kaw suuf ngir xeetalee jamono ci ñoom xettali waa jamono ci ñoom muy bés boo xam ne bisub fàttaliku la bisub ñaan la bisub jël ay bind la ndax li sun bon eh, li borom xam-xam ne wa inda dikri saalihiina ñuy fàttali ko waaju baax yërmande sun borom dafay wàcc yërmande ja mooy rek lañ fay dégg ci ay bind ci doxiinu ku tedd ko mooy yërmande ja te ci saalixoon yi la bokk teyit bu sun boon ñu xoolee alxuraan ba mu jeex lépp génnut ay digle ak i tere ak i nettali ak i dëhël ak i tëkku waaye nettali ci biir yëpp nag dafay nettali gaa yi fi jaaroon tey ñu baax ñu doon dund seen diin di ko dundal ak fa ñu mujj nettali ña nga xam ne ay nit safaan lañu woon doon ñu rëy ñuy dunde bakkan ak fa ñu mujj loolu nag war a doon ay jàngat yoo xam ne dañ xame ne kon ndeke kon ku ne ci lu baax ñu baax ña fañ mujj fa ngay mujj kon na ci leneen it ña nekkoon ci leneen fañ mujj fa ngay mujj waaye bi mu ko nettali yonent yeeg gaa yi baax fa ñu jaar baaga lam jeexale wax ja mooy ulaayika alladina hadallaahu fa bi hudayhum di ñii ma lay nettali seen i jaar jaar kat yàlla da leen jubaloon seen njub googu laa bëgg nga roy ko man ma lay nettali seen i jaar jaar bu ñu fàttali ko baax it ba tey loolu mooy dellusiwaat borom sàmm mi ñu fàttali nag moom eh, kenn la ci ñooñu di magi Sëriñ Tuubaa joo xam ne ñoo bokk lépp ñoo bokk soxna jaara bokk sëñ Mor Anta Sali eh, waaye bokki lépp nañ bokk neen seen borom boole ci way ju na leen na boole seen lépp mu doon koo xam ne dundam gépp da ko jeexal ci xam-xam ak jaamu yàlla ak liggéey ak dimbale ndax koo xam ne sa sa la guddi képp téeméer rakka la daa doon di kaamilu alxuraan loolu yaakaar naa ne eh, déggaatuñu keneen ku ko ñaareel te damay faral di wax ne téeméer rakka mu fekkoon doo ci jàng dara ay taxawaay ak sëgg dong doon la muy jël ci waxtu ak la muy doon cib coono kenn xam nu mu toll rawati nag boo ci day jeexal kaamilu alxuraan eh, nekkoon ko xam eh, digga ma Sëriñ Tuubaa itam seen ni leen boole waju ndeel leen boole seen lépp Serigne Touba tegoon ko fu kawe fonkoon ko lool daa bëgg itam ci képp ko ko fonk lu waaye masa waxta fonkaloo ko sëñ Mor Jaara defoo la ko neex ba sax képp ku masaan jóge bawal ñëw ñëw ci moom te jaaroo fi lool lool lool da nga yëg ne dana ci amu tàngoor dana amu tàngoor ci ko jóge bawal fekk si ko te jaaroo ci sëñ Mor Jaara ba noppi ndax daa wax ne mooy sama buntu ko jëm si ci na nga jaar fi moom moo tax ku ma saan fii boo agsee faaw daan ne la anam Jaara te boo fa jaar doo ko mën a tontu moo tax nag mu mujjoon na mag ñi kenn ñëm wut a dem ci moom te njëkkoo jaar ci moom ba siyaare ko noppi eh, sëñ Mor Jaara itam def lu jafe ndax moo ko féeteeg mag ci saaxir jàngal na ko ba noppi nag nangoo wàccaat ci kanamam tey rakkam lool lool lool lu jafe-jafe la ku ko seet ci sa bopp da nga xam lu jafe-jafe la koo xam ne yaa ko mag di magam ngeen bokk lépp nga jàngal ko dolli ci walbatiku nangoo wàcc ci kanamam loolu borom xol bu set rek moo ko man te sëñ Tuubaa newoon na sëñ Mor Jaara ak sëñ Mbàkke sëñ sëñ sëñ Mbàkke Kajoor ñoom ñaar képp la xam ñoo xam ne dund nañ ba jóge fii yóbbu leen yóbbu leen seen borom bàkkaar yóbbu leen seen morom seen seen morom bor yóbbu ñu seen borom bàkkaar yóbbu leen seen morom bor loolu nag ñoom ñoom rek la ko Sëriñ Tuubaa seeral ñoom ñaar rek Sëriñ Mor Jaara ak Sëriñ Mbàkke Kajoor Sëriñ Mbàkke Kajoor mooy jur Sëriñ Abibu Sëriñ Abibu imaam mi fi nekkoon keroog bi nga xamee ne génn àdduna ba Sëriñ Tuubaa yebal Sëriñ Mbàkke Buso ne ko nanga ko taxaw da ko ne soo demee bala nga koo taxaw na nga seere ci kanam mboolem wax ne jëmm ngi nii joo xam ne keroog bañ tiimee rasulullahi ba tey tiimaatuñ fi jëmm ju tedd na ji loolu suñu bànnee ko boo demee na nga seere loolu ba nga ko jullee na wax ne jëmm ngi nii joo xam ne bañ tiimee rasulullahi ba fii fii ñu toll tiimaatuñ fi ko tedd ni kii nga xaw rasulullahi ba ci moom li fi jaar ci ay xutbu ay xutbu samaan ay xawsu ay aqtaab ay awliya ay ay ay abdal ku ne jaar na fi waaye nee na gannaaw rasulullah tiimati ci ko tedd ndi kii kon nag loolu yaakaar naa ni doy na sëkk loo xam ne Sëriñ Tuubaa seereel na ko ko nga xam ne keroog ba mu génnee àdduna dafa wax ne lawalal qur'aanu wal xadiisu wa masalih mu'minin maa bittu fi dunya leylatan waahida bu doon woon ak alxuraan ak xadis ak li ma sama borom di liggéeyloo ci nit ñi te noppee gut kon du ma fanaana ci àdduna génn guddi keroog bu ñu ko tàggee suñ mor suñ mor jaar loolu la wax moom moom sëñ Mor Jaa ne ko loolu lu mu doon mu ne ko li yàlla bind lépp man dong la ci yàlla déglu lu ma ko wax dana ko def waaye man li yàlla bind lépp yow dong laa ci déglu loo ma def ko loolu nag kon lam amoon ci moom cër ba mu añ moom rek moo ko ci amoon sëñ Tuubaa mas koo woolu njaareem mu ñëw mu yabal ko ci benn néeg mu fekk fa jëmm joo xam ne jëmminaar la gannaaw ba ko demee Sëñ laaj ko ne ko ndax xam nga ko nga doon nuyul kum doon mooy ko dee mooy ko Rasulullah sallallahu dafa sàkkoon ne dalaa bëgg a gis Sëñ moo jaar ne ko ah loolu day lu rëy rëy la ndax koo xam ne mag ñi lu nekk daanañ ko daj di julli guddeeg lu nekk ngir bëgg lu nekk daa ko daj ngir bëgg koo gis rek kon ko ku muy sàkkoo gis lool lool loolu ma Sëñ Tuubaa ko dangaa xamul sa rek waaye ñi mboolem ñi ngi ko tuddee ñëpp yaa ko ci gënal ñi ngi ko tuddee ñëpp yaa ko ci gënal waaw kon euh, loolu lépp euh, di yenn ci yoo xam ne ñoom ñaar lañu lañu lañu séq séqoon nañ ko te mas naa siyaar Sëñ Tuubaa njaareem ci benn bis ndax Sëñ Tuubaa xam nga nim nim daa nim da nim ko daa wormaale ak lim ko ni muy wàcc boppam li muy wàcc wàcc ci kanam teew Sëñ Tuubaa da ko daa séddee cërub kilifteef gi mu ko féete saa bu ko masaan woolu du ko wala mu ñëw jubali ci sëñ ba waaye day wax ne su ñëwee nañ ko daal barab sàngam su nga dalee sëñ bi nag jóg fekki ko waaye daawa nangu woo ko mu agsi ba ci moom waaye da koy woo ba noppi wuy ji ko ba kooku ne bëri bay dem moo wowaat ko mu des mu ne ko kooki kooki mu la yebal ko daa am nuñ koy wooyee bul dem ren ne ko wuyul sëñ bi waaye danga koy wax ne bu féexee soxla naa ko su jógee bay ñëw yit bu ko jiit di wax ba mel ni dama ko yàkkamti ne ko bul àgg it wax ko ko da ngay da ngay àgg nuyoo ne tekk ba mu laaj la lu doonoon say tànk nga door ko wax loolu bu ko soññit te buy ñëw itam bu ko jiit di wax mel na mel dama ko yàkkamti nga gis ko na ko doon séddee ab cër eh, ci kilifteef gi ñoom ñaar bu ñu masaan dajee ñoom ñaar ñi suuf lañu la ñu toog ndax saa bu masaan woolu si moo jaar day day day lallu ak laltaay ngir bëgg ba ak see ci eh, biig la sëñ Cerno Mbàkke mi ngi ko nettali sëñ Cerno Mbàkke sëñ gelongal ne bi suñu Omar Mbàkke daa ñëw di siyaare sëriñ bi boo fekk boo si boo suñ Jaara nga fa eh, sëñ Tuubaa dalal ko ci benn néeg nee na mu njëkk jaar ci néeg bi suñ Mor Jaara nekk nuyu ko nee na mu ne ko àggagoon nga ca sawaaja nee na loolu def ko ab jël lim ko ne sawaaja te muy lool lool def ab jël ci sëñ Omar mu ne ko ah, li nga ma wax de rëy na ci la mu ne ko ah, amut ci yow sago de waaye ne ko boo àggee na ne ko ne ko ngi siyaare tey déglu ndigal te bu ñu amee ndigal siyaare siyaare si ko te laajal ma koy nekko ndox ndoxum biig mi daa bari lool mbaa dara ayi bu fa suñu man neen bi ma ne tëll ci kees gi Sëriñ Tuubaa nekk maa ngi ko seen mu laxasaay boo koŋ di am matu njelembaan mu tooy xib muy jëli fee di ko yóbbu fee ne bi ma assuré ma def na moom la waaye bu nee ma daw song ne ko ne ko lii lii nag naan bëgg bëgg a nangu liggéey bi waaye nee bi ma nee matt gi ma njëkk a song daal dafa mel ni ëkk ci man bi ko laajee sëñ sëñ Tuubaa ne ko dama dama dem jànnatul firdawsi fekk fa ñoo xam ne ñu leen tera teral tiraanga tiraanga yu rëy lool ba tiraanga yi yëm ma ma laaj sama borom ne ko année ñii lii am lu ko may mu ne ko dara may leen ko lu may ñàqal la ak liggéeyal la ci lañ ko amee loo tax nag ma lépp lu may sànnal ci ab liggéey maa ciy jiitu ndax lañ am ca tiraanga ma ma am nañ ko ay ay mantam lu mel noonu laa bëgg ma dam may liggéeyal sama bopp ngir mën am ci xéwal yooyu naka bàyyil ma àggal li ma doon def ma àggale mën ko suñ Mor Dia de mi ngi lay nuyu nee na mi ngi laaj ndigal ci siyaare si dañ ko nuyu na la mën ko fay naa ko na doon laaj ndigal it ci di laaj it ndax mbaa ndoxum biig mi dara ayibu mu ne ko kër gi téere yëpp téere yi doo nga fi am njariñ te dara ayibu ci naa ne ko indi indi indi daa ko joxoñ basango naar ne ko indi basangee mu indi mu lal mu lal ne ko demal indi ab tappi ci biir mu indi mu ne ko lal ko ci naa ne ne ko na waag si ne bi ma waxee jëm ci sëñ Mor ne ma geesi seen mu topp ci man ne ma sëñ Mor Jaar ne ko sëñ bi kat fay na waaye nee na nga as waaye waaye mi nit mooy agsi na de ne sëñ Mor Jaar ne bari neen ñoom sëñ bi lëng ko baasi joxe ko romb jaani mu ne ko sama xel xalaatu ko mu ne ko ndigal la sama borom de nee na mu ne ci rëpp ay ñaar loxoom teg ko ci dënn bi daal di rëpp ci suuf nee na sëñ jaari sëñ tubaay ci suuf ñu bokk fa bàyyi lal tay sañ saa ñu masaan daje noonu la ñu def maanaam kenn du toog ci kaw kenn ku nekk da ngay warmaal sama ñoom ñaar ñëpp ci suuf la ñu toog loolu warmaalante eh, munu ko weesu ak joxanti cër bisi ñëw nit ñi jaar yi moom sëñ moo jaara fekk xasida ko xam suñu baa koy door bind mooy xasida ko tooy xib mbind mi sax fendeegut bu baax eh, bi ñu ko jox leen baag si mu ne ma xool ñu jox ko mu xool bopp xasida rek daal di koy daal di koy tari muy xasida gi mu mi noonu baaxil xadim mi tàmbale ci barra anil baaqi min al amradi wa kab man anka bi iqtiradi loolu nag yéem nit ñi lool ñu di ko waxtaan di waxtaan ba sëñ wax ji ak ci sëriñ bi mooy leen ah kooku mbaa de foofu rek ngeen toll ci moom ah ñu ne ko waaw mu ne mu ne moom xanaa xamu leen nu ma demee ak moom ñu ko dee mu ne dafa mel ni ñaari ñaari doomi bàyyi yoo xam ne dañ leen yónni ne leen bu ngeen demee ci diw nee leen ko nangam ak nangam nee suñ demee kenn kaay wax ka ca des na cell nee na ka ne cell nag bu kii noppoon moom ma da wax lañ leen yónni nee noonu laa demee ak moom la fa la fa moom xam naa ko waaye li fi mën umb ko wax jooju sëñ son bu daana ko nett lu bari waaye bu ko daan nett day wax ne loolu yéemu woon ndax sëñ Moussa Alioune Guèye sëñ Tuubaa mas na ko jox aw fegg ne ko sottil ma ko te bu ko xool sottil mu fegg waaye lu yàgg bu ci sa bët dal te sotti na fegg yit ko may la la may sëñ Moussa Alioune Guèye loolu yi nag may na borom sam lii kon ñoom ñan rek lañu leer nag nit ñàkk xam tax muy wax lum xamut ba nit mën naa wax loo xam ne al alkane mën na ko caa fekk tey ci ñàkk xam wala ay dégg déggaani ci mbedd rek lay lay doon waaye ñoo xam ne ñoom ñaar nii nii lañu ñu demee seen mbir seen seen mbir lépp lenn la woon. xam nañ ci yu baree baree bare xam ne mën du lu ñuy wax ci ci ci ci média waaye ñoo xam ne lañ la seq daal ñoo ko seq te suñu boom moo ko boole te lépp leen la woon. Euh, ku masaan ñëw ci moom ne ci borom saam laa jógee danay da ngay ci moom mbégte moo xam ne mbég mu cee bég moo xam ne maanaam maam si ante mi xam Sëñ Tuubaa daaw dem Sëñ Tuubaa mukk te njëkk te jaar ci borom saam siyaare ko ba mu ci barabam siyaare ko sëñ gaawaan mu sa jëlal alxames jun demul ci barabam borom saam siyaare ko ndee ba tëlee mënatu ko mu yebal si Mustafaa ca doomam mu di ko demal sëñ Fallou diiru an nekk mos sa jël altine jum seere ju borom sam altine ju nekk daana fa dem ndax sëñ bu soob mu nga xam ne nijaayama ndax ma soxna jaar ñoo bokk lépp muy nijaay sëñ Tuubaa di sëñ nijaay sëñ Jaara doñet sa sëkk rek bi muy bi mu laataa samp kër dafa deeyale sun borom ne ko maa samp kër ma am dara joo xam ne doom ju ma jur muy wali ma door a samp kër ne ma sun borom ne am nga dara jooje mu door a samp kër nga ne kon doom waxuma la moom waaye doom ju nekk rek waliyu la ndax lu mu xaatibante woon ak suñu borom la te mooy ni jaayee soxna jaar ak sëñ Tuubaa mook sëñ Mor Jaar ñoo kon ñu xam ne rek eh, eh, la boo xam ne bisub faj aajo la bisub nangu ñaan la bisub xéewal la ko ci njëriñ war ngaa fas bu baax a baax a baax waaye loo gàttal li nga dem ba ca barab bayit seera ko te ñaan fa eh, te ñu jot ñu ñaan yàlla sunu bon defal tawfiix mbooleem ñi nga ñoo topp site Istikhama ñu di leen eh, jaajafal ak yéen ñi nga xam ne yéen leen fi teewal teewal eh, te at mu jot ngeen def ko ni yàlla suñu doon defal tawfiq nawet bi ñu dugg yàlla ko yàlla sottal eh, te te tam xéewale lool lépp àgg dara bañ koo dog te lépp ñu muurloo ko yàggal fi sëñ Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne moo fi toogal sëñ Touba mu yàgg lool te wér sëñ mi nga xam ne moo fi toogal borom sam itam sunu bam defal ko ak wér tam yàgg fi lool ba àggal yéeneem ñëwal sëñ Touba yëpp ak taalibe sëñ Touba yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu